man ñu ni ku ñetteel ki ma déglu ko ba man leen kii moom c'est un crieur public <laughs> c'est pas un chanteur <laughs> c'est pas un chanteur parce que ñaar ñaare leen di xëccoo léegi le griotisme et le professionnalisme xam nga boo demee aux États-Unis léegi chanteurs yi xam affaire professionnalisme waxatuñ ci dara ndax crise bi dafa matale léegi ñëpp a yuuxu yuuxu rek yuuxu كوكو لول رك لا تباركال لا تباركال مو ملني كون نك كريس موم بو ماتالي رك تياليت دا فاي باري يالنا نو يالا موسل يالنا نو يالا موسل بو كو ديفي بي تي ديس نك مودي والبلد الطيب يخرج نباته باذن ربه والذي خبث لا يخرج الا نكدا ريو ريو réew dañ koy sang réew réew dañ koy sang réew dañ koy sang kañ laa ko dale wax ah ah wax naa leen ko ba tey réew dañ koy sang benn ñu sange ko deret walla ñu sange ko xol bu sel amul ñetteel réew dañu koy sang fanweeri at ngi ma di ko wax benn ñu sang ko deret walla ñu sang ko xol bu sell xol bu sell xol bu sell waaw ndax euh, Bilaal ibnu Rabaah dafa am ñu jaaxle ni mu attaché ci yonent bi yonent bi dem rekk mu tox dem Cham ñu ni nag ñu delloo ko ci atifiya wax ni yi mu daan bokk ak yonent bi daan bokk ak bi bëtam moo mënatul tegu ca barab yi ma laaj ko sëñ Babacar si ni ko dañu wax ni dafa dellu ci atifiya mu ni ma mukk mu ni ma kàttanu xam ëpp na loolu moom yéene na dundam yépp serwiir ci yonent bi waaye la Sidna Omar wax ni bu yonent bi demee rek crise bi dana judd te dana lekk ñépp moo ko tax a génn nee na ndax mën na serwiir yonent bi waaye mënu fa toog rek di àtte ay conflits yu dul jeex waaw di àtte conflits yu dul jeex xol yu bon xol yuy fiirante xol yuy añaanante te kenn ku ci nekk yàlla bind na la mu lay jox ci ci sa jë loolu la mënul mu ne nafaf taxu benn yoon rek mu ne ma lool rekk la te loolu jàddu na ci Bilaal ndax gëmam ci yonent bi mën na ko may lu nekk waaw keroog bi Abu Sufyaan di tuub si ci yonent bi ndax jaaxle Abu Sufyaan moom jaaxle ko tax a tuub si waaye gëm taxul ndax moo doon euh, gouverneuru Makka ñëpp ragal ko waaw rekk muy gàntal wàllu yonent bi di ko gàntal rek ba ñépp romb ko fi wuy ji yonent bi mu jaaxle nag ah gisatul mag mu mu waxal mu daldi fabu ni dama ngay dem joxi sama bopp yonent bi naka la ñëw Madina mag mu ko seen daw wuti koo dugg ni kii kay du dem ci yonent bi mukk bilaal gis ko rek daldi dem jël ko jàpp ci loxoom ba ci kanamu yonent bi sukk mu sukk ak ku xam Abu Sufyaan waaw mu sukk mu sukk ci ku xam Abu Sufyaan daal jàpp mbaggu bilaal ni ko yaa mel nii léegi

pour wax la ni rek yonent bi ku nekk moom atu yàlla te soppeekuwuloo danga al ko yàlla xam na ko su ko defee ndeysaan euh, xam nga dafa daan nodd ñi nodd léegi dañ koy roy am na nodd yu neex yu ñuy def nga xam ni boroom dafay nodd ba nga defee ni dafay nelaw sax yàlla xam na ko ñu ni dañuy roy bilaal <laughs> te bilaal noddam demewul noonu nit nitu yitte la woon bu dee nodd ma nga ca loxo ya waaw allahu akbar di woon nit ñi allahu akbar allahu akbar ñii ñoom di nodd ba ba nelaw ni bilaal loolu la daan leen bilaal kay deful loolu talu ko sax wallaay ndeysaan bu dee nodd ma ngaa woote rek ndax yi tijj ah tabarkalla tabarkalla mu mel na kon xol yi xol yi di ko surveiller baax na waaw ah. xol yi di ko surveiller baax na xol yi di ko surveiller baax na te itam rekk loolu Blaise Diagne waxoon lu am solo la sama xarit yi defe nañ ni lii nguur la dañu koy noose benn yoon sama noon yi jàpp nañ ni sosal ma moo may daaneel tubaab yi nekk ci diggante bi di leen exploité te dama am jabaru tubaab am complexe ñeent yi moo nekk ci sama kaw ba bëggatuma soo dund ma ni ko yaay sonn nga de ma ni ko sonn nga ba mu ëpp tabarkalla tabarkalla ah te nit it da koy jox lu mu àttan nit boo ko joxee lu mu àttanul rek mu feeñ ci moom yàlla xam na ko moo tax rek di tànn njiit baax na de waaw bala ngaa jox nit ay responsabilité nga xam ni mën na ko lijjanti bu ko mënul lijjanti rek dafa dal di indi yàqu-yàqu loolu moom ku nekk xam na ko ndeysaan benn góor dafa daan def commerce su dorog dorog boobu weex na mu tuddati bi mel ni suukar ah woo te mel ni suukar mu ngoog <laughs> moom la daan jaay Eh, doom bi nag muus di ko ci dimbale mu di ci amal lëf ba jarbaat bi ci kër gi ma mer dem wax yaay jënd ko sama nijaay daal boolewuma ci dara doomam rek lay yónni waa yaay ji dem xulu góor gi ni ko waa baax na kon nag moom itam ma boole ko ci rek daal di koy woo ba mu ñëw nag mu tëj ko ci néeg bi ni ko gis nga lii di niroog suukar mu ni ko am ni ko daf may faj sama garab la sa cousin bii moo ma koy toppatul toujours xam na fu muy jaar ndax bu ñu ko nangoo ci man rek dootuma am lu ma fajoo <laughs> ndeysaan mujj rekk mu mu daldi am jom mu jox ko li mu koy jox wax ko fu muy jaar ak fu mu koy nëbb bu demee <laughs> yàlla te mu mu dem ba mu demee ba ci ëllëg sa ca ngoon mu woo nijaay ji mu ni ko àgg nga jàmm mu ne ko waaw mu ne ko li ma la waxoon yépp def nga ko mu ni ko def naa lu gën a baax loolu sax mu ne ko loo def mu ne ko dénkal naa la ko duwaañe yi pap góor ga daanu xëm ko dénkal naa la ko doyen yi mu fab taanu xam moo tax bu ñu la joxee loo mënul àdduna bu ki lay doon yàlla xam na ko mu mel ni kon itam rekk liggéey yëpp noonu la mel tabarkalla liggéey yëpp liggéey yëpp noonu la te itam buñ ci boolee xel rekk ak wattandiku dafay baax waaye buñ ci boolewul xel boole wuñ ci wattandiku musiba lay doon nit li mu man mën na ko waaye li mu mënul mënu ko ça il faut le dire te wolof dafa wax ni fas bu ko jox sa xarit jox ko xaritam waaw fas daal boo ko joxee xaritam rek mu kontaan waaye boo ko joxee sa xarit te mënu ci dara kooku baaxul loolu moo nekk ci àdduna bi ñu di ci bàyyi xel ci daara yeeg di ci bàyyi xel ci administration beeg di ci bàyyi xel ci lépp lu ñuy def rek ñu bàyyi ci xel te nu yërëmante saa suñu demee ba jamono naqadi dañuy fexe ba seet li ko naqadil ñu jëm ko dindi ñu jéem a àndandoo rek dindi ko dindi rek metit yeeg yépp tëral na mu gën a rafete ñu defe noonu ndax moo gën de moo gën nag ndax dama toog ak Abdou Diouf yàlla xam na ni booba xam naa ni dafay dem maa ko xam ndax toog nañu lu man ñetti waxtu waxul ba léegi affaire élection yi mukk eh, ñuy waxtaan famille rek famille après ñu waxtaan affaire culture affaire culture

waxul ba tey affaire élection yi ma xam ni dafay dem ma xam ni dafay dem te waxu ko waa parti bi waaye man xam naa ni dafay dem ndax xam nga beneen affaire la wallaay ni ma wóoree ni dafa dafay dem dafa waaye waxuma ko waxuma ko it waaye tanoor it xamoon na ni Abdou dafay dem te waxuma ko moom itam seetal loolu waxtaan seen affaire yi kenn xamul lan la yàlla xam na ko. ñu di ci waxtaan nag ba ñu agsi ci affaire Alaaji Maajoor Siise mu ni ma maa ngi la koy dénk bu baax ndax ku la sopp la waaw mu ni ma maa ngi la koy dénk bu baax ndax ku la sopp la mu ni ma ma wax la ko wax na ma ci yow loo xam ni daf ma bett billaahi wal kitaab dem ma ko wax ni ma loolu fooguma ko woon mukk waaw ni ma nanga ko jàpp ak sa ñaari loxo te nga di ko ñaanal yàlla wallahi moo ma ko wax moo tax ba léegi maajoor dama koy ñaanal yàlla xam na ko waaw mu teg ci ni ma euh, ndax mook euh, Amadou Karim Gaye ñoo bokk tariqa ma ne ko waaw ñoo bokk tariqa tabarkalla tabarkalla yooyu yëpp muy ay détails yu muy laaj noonu te boolewoo ci élection seetal loolu kon nag yal na yàlla def jàmm yal na yàlla taxawunu mu mel ni cofeel beneen affaire la sëñ Babacar si ni ko nit ñi di soppe doo xam lan la ndax cofeelu xol lay doon tabarkalla bërki démb xale bi dafa yëkkati benn enveloppe jox ma ni ma dafa am ku la ko jox mu ubbi ko fekk ci ñaar fukki dërëm ma ni ko ki ko jox nu mu tudd mu ni nanguwul a joxe turam ndax mu ngi war a am juróomi at juróom benn mu ne joxal ma ko maam Cheikh rek jeex na waaw ma laaj laaj turam mu bañ pour wax la ni ñooñ ñépp ay taalibeem lañ yàlla xam na ko ci biir koor gi dama gént gis ko ca ndar ci wetu mu pont Moustapha liggéey mi ngi topp xale yu ndaw yi di jël loxoom di raay ci seen bopp ma xam ni looloo yéeneem ci réew mi waaw yàlla xam na ko moo tax tabarkàlla nuy ñaan ci barkeem rek yàlla di nu taxaw di ñaan ci barke itam jafe-jafe yépp yàlla taxawunu ci ndax yàlla moom ku mu taxaw rek sa yépp dafay baax tabarkàlla ñi participer ñépp ci gàmmu gi yal yàlla defal leen yiw wu dul jeex mukk ñi ci sonn yal yàlla defal leen wéru yaram ak wéru bakkan ak wéru ruux yal yàlla defal leen ko yàlla leeral seen bët te leeral seen xol te yàlla dimbali leen itam léegi kenn wéru waaw moo tax tabarkàlla nuy ñaan ci barkeem rek yàlla di taxaw di ñaan ci barke itam jafe-jafe yépp yàlla taxawunu ci ndax yàlla moom ku mu taxaw rek sa yépp dafay baax tabarkàlla ñi participer ñépp ci gàmmu gi yal yàlla defal leen yiw wu dul jeex mukk ñi ci sonn yal yàlla defal leen wéru yaram ak wéru bakkan ak weeru ruux yal na yàlla defal leen ko te yal na yàlla leeral seen bët te leeral seen xol te yàlla dimbali nu itam léegi kenn wérul waaw moom da ngay rusa tawat sax kenn wérul koo gis rek ndax moom <laughs> la mage daal doy na waar dama ci wax kenn mu ne ma man daal lii bu ma ko yógoon du ma ñaan gudd fan ma du ko foog nga ñaan gudd fan boole ci nag wallaay sànn waaye alaaji Abdoul Aziz dafa ñëw ànd ak Abdou Aziz mii ñu ko dama soxla Cheikh te duma ko woo mu ñëw ci man damay dem ca moom ndax moom nag ñaare këram dafay dafay wéet moo tax rek wax fa soxla farata la mu ñëw nu waxtaan bay génn nag ma di ko gunge mu wàññeeku téye sama loxo ni ma yal na yàlla guddal sa fan wallaay ni ma yal na yàlla guddal sa fan ñu ngi taxaw di ci guddi booba minuit passé na mu ne ma yal na yàlla guddal sa fan Abdou Aziz sa ngi taxaw xalifa loo ngi taxaw mu ne ma yal yàlla guddal sa fan ma ni ko amiin mu waxaat ko ma mu dellu ko ma ni ne ma maa ngi koy yaakaar ci moom nag ndax wa am maa yanfa'u naasa fa yamkudu fil ard waaw ah ma xam ni koo xam ni yaa ko dalal basin mi mare bo jekke ba di ko ñaanal loolu sant yàlla rek ci war tabarkal bu mel ni kon nag ñun itam loolu lañ leen di ñaanal tabarkal tabarkal la yal na yàlla taxawunu ci zaahir ci baatin ci daraje yonent bi daraje borom guddi gi moom kenn mënu ko fay tabarkalla ndax la Hind waxoon Abu sufyan bi yonent bi ubbee makka te mu ñëw dóor jëkkër ji ni ko góor yu ñàkk fayda fexe ngeen bu muhammad nangu dëkk bi li ngeen di ñàkk fayda daldi koy dóor dóor dóor dóor jëkkër ji jëkkër ji téye loxoom ñu ko xam nga lu xew mu ni ko mu ni ko du nangu màkk rekk بخاو العرض يبدا نكون نغوتي آه، شرق غرب داغي فونت داو سي نك سوغو جوي جوي متي تا مسولا جوي سي دوندو نا نعم، لين كو واخ خامنا ني دغ لا يونتي يعني بي دنا نانغوجي بي خاو الارض لولو كو متي باتانا لول لوكو يالا ديفال موي متي دي متي دي متي دي متي بومو خامني لي مو بوغون سي موم سي موغ اك دغري ak gëm ak pas-pas nekk na ci moom mu soog a commencé nag di ko woyofal tuuti tuuti waaw ba noppi nag wax ko ko di ko maa ngi commencé di woyofal léegi nga gis nit ñi di ñëw léegi nga gis nit ñi di ñëw waaye bu ñu ñëwee fa sabbih fa sabbih bi hamdi rabbika de waaw ndax maa ko def kenn def wastaxfiru de te na ko jéggalu ndax yëg naa yi nga daan nëbb ci sa xol naan tàyyi naag nangam nangam wastaxfiru waaw wastaxfiru innahu kaana tawaaban moom kuy nangu tuubu ku mel ni yow la seetal loolu ma nga ca idaa jaa nasrullah waaw ndeysaan dalal naa jàng ku am fu juróom fukki at te masul dal di ko jàngal ba ci wastaxfiru mu mu tëkku tijj wallaay ndeysaan bu ma ko ne waxal wastaxfiruhu mu ne wastafirhu nu nu nekk ci rek ba ma ni ko wax boobu moom jël ko te nu demaat rek <laughs> tabarkalla tabarkalla wallaay ndeysaan ma ni ko yéen ji rek am solo yàlla xam na ko ba tax na loolu rek moo ci nekk ah

wëllëre ak mbokk moo bokkal bokkalul sant ak mbokk moo bool bokkal sant woowu yiw xajul ci àdduna yal na nu ko yàlla defal te ñu fóot dañu ñu sang réew mi nag ñu sangu ko waaw dañ ko sang de fanweeri at ngi ma di ko wax ñu di ko bañ dañ ko sang dañu sang réew mi réew boo ko sangee ak xol bu set dal di noppalu boko ko sangul ak xol bu set deret tuuru waaw wax boo ko ak xol bu set mu set wecc waaye boo sangul ak xol bu set deret tuuru waaw mag mu baax laa ko wax fële ca ardul quds ma ni ko waaw lu yonent bi ñaan yi mu def yëpp ci ardul quds te li fi dee ci ay nit mësul dee mu ne ma ci nun la mu ne ma ci nun la nag ma sàcc wax la ko waaye ci nun la waaw mu ne ma ci nun la xol yi xol yi la lañu sotti ci réew mi mu takk ah ci nun la yi lañu sotti ci réew mi mu takk ah te la Serigne Babacar waxoon ni jubóo bi nañ ci boole ñépp bu kenn des te nañ ko def ñëpp fekk ko ah nañ ko def ñëpp fekk ko te dégg na Hadj Mansour waxe rek yépp baax yépp ndax la mu ni kii moo ma yar maa ko xam buñ ko bàyyee ba mu génne li ci xolam yëpp rek bu ñaanee yëpp dana dox la kilifa pire la yàlla ko defal mako xam watana kon nak ba tey réew mi yu baye xel ci lolu ndax itam juboru ko baxul muk ci lu ñëpp mom ci lu ñëpp mom juboru ko baxu ci muk ba rek ah wal baladu tayyib yaxruju nabatuhu bi idni rabbi walladi xabus laa yaxruju illa nakida yàlla wax na ko te la mu ci jublu ñépp xam nañu ko moo tax rek xol yi xol yi xol yi ah la Bilaal waxoon rekk ba muy dem Cham ah te sëñ Babacar seddeel ko ko mooy la ca Madina xaju fa la ca Madina xaju fa ci xol yu tàng xëccoog wujjanteeg gaaralanteeg ña ña ña ña ña yu kenn xam kenn xamul loolu tax mu fa bu dem mu mel ni kon nag eh, mbay daal ci sa tànk te itam rekk ñu sang réew mi waaw sang réew mi ndax dama ci bokk ba tey yàlla xam na ni bokk naa ci ba tey waaw moo tax ñu sang réew mi rek mu gën de ndax itam ku seet ñeenti siècle yoo xam ne tabarkalla yaa ngi ci réew mu révolution amul gert civile amul yàlla di la jàppale au moins quatre siècle da nga bañ ni doo sang réew ma bul xam lu cay topp bul xam lu cay topp de te mag a wax ak man billaahi wal kitaab ma wax ak man de yàlla xam na ko te ma suma yëg ci moom mukk lu mu wax mu deñ wataa rek nu sang nu sang réew mi nu sang ko moo gën de nu sang ko xol yu sell moo gën ñu sang ko ak xol yu sell moo gën te lu ne ñu jaare la ko yoon lu nekk ñu jaare la ko yoon lu nek ñu jaare la ko yoon farata piir la lu nek ñu jaare la ko yoon xëy na injustice boo ko gisee te yàlla jox la pas-pas foog nga wax ko ba malik mi sama dama wàcc ci aéroport maa ngi jiitlee koo xam ne maa ko mag fuuf te li ma def ci réew mi deful dixième ba sax ñu ñëw ba ci bunt bi ñu bàyyi ko moom mu jàll ak bagage man ñu téye sama bagage wallahi wal quraan al azim ni ma ubbil valise ma ne am mukk du ma ubbi jëli leen këli mu ubbi ba noppi waaw yàlla xam na ko ñu ni déedéet kooku du ñu ubbi valise ma kon ma sama bosit kenn du ko ubbi yàlla xam na ko parce que nag itam màndu baax na ah ñu bañ ma ne kon nag du ngeen jot ci caabi ji fekk déwén soxlawuma li ci valise yi soxlawuma ko dal di teg dem ba ca kër ga ma téléphoné Pape Malick mii téléphoné ku baax koo xam ni moo ëpp ñoo ñëpp garaat mu ni ko waxal tonton Cheikh ni ko bu mu tëdd mukk te ñëwuma ma ni ko baax na yàlla te ca quatre heures du matin mu teer mu nga sol robe de chambre sol sa yére ak camionnette def ca sama valise yëpp indil ma ko ci biir kër gi ni ma ko defuñu màndu may duma def màndu dëgg-dëgg mel noonu dafa bare dafa bare yàlla xam na ko naka la ko def ci ëllëg sa ca onze heures rek Senghor woo ma ni ma eh way dañu téye woon sa bagage ma ni ko waaw mu ni ma ci joxe ndigal ma ni ko foofu mu ni ma aha ma ni foofu la jóge maa la ko wax waaye xam nga loo def kii kay def ko kii ah? waaye am na loo xam ni kenn xamul lan la man loolu ci laa dëkk ci laa dëkk ci laa dëkk moom yàlla ma ci dimbale rek no noonu laa ko noonu laa ko donni noonu laa ko donni ci sëñ Babacar si mënuma ca tus yàlla xam na ko waaw waaw mënuma ca tus ah loolu li ma ci daj mënuma la ko nettali te amu ci dara lu diis na tabarkal la amul ci dara lu diis ngir yàlla ak barke kilifa ah bind naa leetar boo xam ni Amadou Moustapha Wade bii gaañu barki démb moo ma ko bindal leetar bu amul morom ma bind ko général dogal Gaulle ni ko mayu loonu indépendance ci nous a laissé tomber parce que indépendance dañ koy jox réew waaye kenn du ko jox équipe maa ko ko wax mu yabal conseiller am ni ko gisal Cheikh waxtaan ak moom mu yëg ni maa nga Paris rek mu wax ma ko ma dem jëli Cheikh Tidiane Gaye càmmi ñu soxna tabara di najaay ci man di xarit ci man ndax mooy najaay yu Maodo ñu àndandoo dem Élysée mu ne ak góor gi dafa jaaxle ci lettre bi ma ne ko ah, waru ci jaaxle parce que dafa jëlul responsabilité am ma ne ko loolu rek la mu ne ma waaw waaye nag man su ma doon yow solution politik lay wut ci affaire bi mu ni ma ndax kat euh, militaire mën na taal xare waaye mënu ko fay waaw mu ni ma militaire mënu ko fay civil koy fayal ma ma ko wax ci lamiñam wax ma yëpp nag tabarkalla tabarkalla Cheikh Tidiane Gaye ngi toog boobu maa ngi ubbi sama boutique sorewul foofu ca ca Paris laa wax de mu ubbi sama bureau ci rue de la Boétie man mii di ndongo daara amee sama téere mbar mbar ubbi bureau ca rue la Boétie di dugal di génne di jaay man rekk nag maa ko bokk ak benn Suisse ak koo xam ni homme d'affaires français la ak koo xam ni mu nga dëkk ca euh, xaw ma naka lañ leen di tudde euh, te mooy directeur u président de l' assemblée nationale nu bokk ko rekk di liggéey nekk rek ay ndongo daara jeex na parce que yooyu itam farata piir la ma wax la ko farata piir la de sinon doo xam dara dara dara ci àdduna bi tus nga dul xam ñu nekk fa rek nekk fa nekk fa ba la ma wax yépp ma xam ni wax na dëgg mu ne ma boo rek wut solution politique chaque fois qu'il y a quelque chose au Sénégal na nga wut solution politique parce que au fait wax na ma ci làmmiñam ni

dëgg te miir bi miir bi maa ngi seen fële ci miir bi ñu bind ci allahu akbar ca koñ bële ma gis ñu bind ci coca cola ma ne ko noonu rek la demee ma ne ko seetal loolu ci benn miir fële ñu def allahu akbar fii ñu def coca cola mu daal koy nangu li koy bindi leetar bu rafet nag balu ko àq seetal loolu lanu yàlla taxaw te doomu soxna yi itam nañu taxawu seen bopp nañu taxawu seen bopp de nañu taxawu seen bopp waaw doomu soxna yi nañu taxawu seen bopp ndax kenn ëpp leen cër ci réew mi nañu taxawu seen bopp la ñu war a dox ñu dox ko la ñu war a wax ñu wax ko te bañ ci am benn ragal parce que yàlla rek a fi nekk kenn nekku fi yàlla rekk fi nekk kenn nekku fi yàlla xam na ko Alioune Fall bi amee woon rajo di jarbaat ci man dafa daw rek ñëw ni ma ñëwal ma àdduna baa ngay takk ndax nit ñaa nga nele wax sengoor pour mu fetal étudiants yi ak syndicalistes yi te catastrophe la fekk mënuma jóg maa ngi soj ba yàqu ba ne ko am nga bindukaay mu ni waaw ma ni jox ma ba jox ma ma bind di ko dawal jox ko Senghor ma wax ko ni ko bàyyil sa xel ci ni taalibi Isa ibnu Maryam nga te Isa ibnu Maryam li ma la jàngal mooy humilité il faut que tu sois humble mu dem jox ko ko mu jàng ba noppi def ko nii def ko nii jox ko chef d'état-major général mu jàng ko ba noppi gannaaw bi mu ñëw ni ma affaire ba tabarkàlla sedd na loolu la ci yàlla dogal Senghor nag ma gis ko mu ni gis nga Isa mo nu sant humilité mais euh nitu politique xamul humilité modestie la xam ma ne ko sorewuñu yow itam ya xëy ma ne ko waaye moom jàngalu la modestie humilité la la jangal nangam nangam nu soowoo dañu melone ni doomu ndey te bis bu ne nu xare loolu kenn mës ko gis yàlla xam na ko Euh, bi ma ko mujjee gis walaay ndeysaan mu ni ma danga ma fàttali benn benn prince grec boo xam ni ku bëggoon sañse la waaw nangam nangam daal di kontaan noonu euh, ni ma euh, ñaata ñaata at lay dundati ma ne ko yàlla rek ko xam boobu moom mënuma ko xam yàlla rek ko xam waaye dañu meloon ni ñu bokk ndee ak bàyyi waaye bés bu ne nag ñu jël yet xare ndax àdduna lan ko fekk yàlla xam na ko mu am soxnaam lu mu def loo xam ni yàlla ak ko dimbali te dama am sama benn doom bu nekk fii ci ngol di sama xarit di xaritu ma dem di sama xarit di xaritu madame Senghor di sama doom boo xam ni maa ko jur bokk na sax tariqa ndax moom ci kër Cheikh Saadu Abi la joxe boppam waaye tudde na ma doom tudde sama sœur doom te bokk nu tariqa waaye sama xarit la di xaritu madame Senghor moo xuloog Senghor madame Senghor dem fa ñu ko gis nga photo bii dindi ko sama photo kat mu ni ko dindi ko dinaa fi dellu si samedi bu ma koy fekkee rek te samedi jëmu ñëw ànd ak ñaari gendarme fekk photo ba fa mu nekkoon mu daal di ree ni ko dama doon seetlu wallaay ndeysaan doon seetlu ba xam fu sa pas-pas toll di wàññeeku rek dem woolu ji Thierno Amath Mbengue ko kayit déglu li may wax seddaar léegi daal na juboo ak Cheikh Tidiane ma jël sama bagage dem tugal seetal loolu pour wax la ni fii am na ñu xam seen bopp de parce ndaw soo sële bu xamul woon boppam dana dindi photo ba maa la ko wax ndax gis naa fi ñoo xam ni ma bokk ak ñoom gën a sore ak ñoom te bañ leen ko waxee dañu dindi sama photo sànni jàll ba maa la ko wax te mën naa leen tudd fii waaye bañ leen ko waxee dañu dindi sama photo sànni jàll ba walla

wallaay ndeysaan bu RTS ñëwee di ko filmé mu daw daal di wékki xaar sama bos nëbbu ci suuf ba ñu filmé ba noppi dem mu soog a wékkaat ma ni seetal loolu loolu dafa baax baaxul baaxul mukk parce que gëm yàlla nag baax na tabarkalla tabarkalla tabarkalla loolu kenn mësu ko gis RTS la wax nga dëgg wax nga dëgg wax nga dëgg. nga waa waaye moom moom li ci nekk xam nga waa ji dafa wax ni ah, bëtam bëtam dafa njaaloo sëñ Babacar wax ko ni ko ku war seede mu ni ko yàlla mu ne ko bàyyil ba dem fa waaye gis nga ah, télévision yi bés bu ne bët njaaloo ci ma wax leen ko bés bu ne man leen kon nag lu ngeen ciy soowati loolu kay moom jeex na tàkk léeg-léeg nga gis waaye loolu kenn mësu koo gis lu nekk ngi ci të noonu la àdduna deme kenn mënu ci dara moom daal diine dafa gilise rek jëm ci folklore cheikh a ko wax te itam nag boo ko jéemee saafara rek yàlla daal ci sa kaw waaw la ko kon nag yow yaay xam nooy def rekk léeg-léeg ah waay loolu kenn mësu koo gis moom léeg-léeg nga gis jigéen joo xam ne dañ la naan kii mooy waaraate ci rajo bi bu ko defee walla ci télévision bi man leen kii de bu sañsee ba waaraate kenn dootul déglu waxam ci sañseem bi la ñuy xool maa leen ko wax ndeysaan waaye ñu nga ca rek di soow di soow ba tudduma raj rajo boobu télévision boobu ñu ni ma mooy mooy bu nguur gi du dëgg RTS bi ci des nous bi des amul deux S des s ah, deux S, deux S. Moi, ma télévision la ah, de ayul Wa, de RTS RTS deux deux deux S 2STV ci ah ah ah waaw waaw waaw lu muy génne moom ah ah mooy génne làmb yi làmb yi ah, waaw kay mooy génne làmb yi ñiy bëre. waye bu RTS bi moy genné ablay Wade balay ndessa balay ndessa balay ndessa <laughs> ah lolou baax na kat loolu baax na kat te dégg naa am na beneen buy ñëw ah ah waaw boobu defe naa bu Sidi Lamine bi mu ngoo waaw Sidi Lamine moom sama rakk bu baax la ci man tabarkal la bërki démb xuloo naa kenn ku ñëw rek gis benn benn monteur bu ma joxoon monteur ba na mu rafet si def mu ni ma rek foog nga may ma ko ma ko lànk na ma ko gis ni ki ma ko may sama bakkan la ndax maa ko yar Sid Lamine maa ko yar ci kaw la bu ma masaan di ñëw ba ma xaleel la dafay yéeg ci kaw garab di ma séentu yàlla xam na ko dafay yéeg ci kaw garab yi di ma séentu ma ne ko duma ko may mukk mukk ndax eh, eh, objet d'art dafa am solo dafay am valeur eh, sentimentale ah objet d'art dafay am yenn valeur sentimentale waaw boobu nag moo valeur financière mais boobu valeur sentimentale bi ko ëpp doole du dëgg euh, ma dama dem na euh, du golf bi golf golf waa léegi ñuy tàggoo ñëpp ñi mu ngay dem ci golf ba waaw du du pays golf yi lañ ko tudde mu ngoog ma dem fa koo xam ni daal mosuma gis ku baax comme moom mu mu dugal ma këram euh, wan ma wan ma yi ñu ko yettal yi ñu ko yettal toogukaay euh, euh, mu ni ma mu nga jóge ba Chine Chine ñoo ko yett ma ne ko am naa ko mu ne maa ah, deet yii dafay soog a xew ma ne ko am naa ko mat na fukki at léegi ma ne ko xam nga ku ma ko may sama benn jarbaat mi ngi tudd Mamour ma ne ko ma nga ci ambassade du Sénégal ak Baye ma ne ko moo ma ko may jënd ko ci xaalisu boppam may ma ko ndeysaan mu mel ni daf feebar loolu lu ci nit di feebar loolu kay jarul feebar ma ne ko Mamour moo ma ko may wallaay ndeysaan ma ne ko yéene ma rek mu ne ma wax waaye man ni ma ko installé yow man loo ko parce que sa kër amul piscine parce que dégg loolu euh, euh, ni ma seetal man maa ko def ci commune ju piscine bi ma ne ko nag piscine euh, c'est une aberration maa ko wax ndekke mu ngay bëgg a dee ma ne ko c'est une aberration carrément nëbbu ma ko ma ne ko ce sont les cowboys qui ont introduit ça cet élément là dans notre intimité je ne suis pas d'accord. Parce que l'un des hommes les plus civilisés au monde, c'est le roi Salomon. Il disposait de prison. Moi, nous me séparer de ça demain. Parce qu'il avait peur euh, de, de ce qu'on appelle à la jérabillade. Vous mais où qu'il a appris ça Avec ses hôtes et avec les avarites, il a mu jaaxle nag ba mujj rek mu mu pipputu ma bi boutique bi matu ko ba maa ko tey nag maa ko def exprès pour wan ko ni ko mu kàllam mu doon li ma ak lu mu am ci àll war na xalaat leneen lu dul di wone ay yu ñu yett ak yu ñu yettu maa ko maa ko def exprès yàlla dogal nag ndeysaan nekk li ma ko wax yëpp gëm na ko ci guddi ga nag mu yóbbu ma foo xam ni benn pale la rekk dal di defar defar ba noppi bu ñu reeree ba noppi nag mu tàggu ma ni ma bës ba naka la dëdd rek ma gàddu sama saak dem ci hôtel ba tëdd fa ca yor yor rek mu ñëw ndeysaan xol bi tàng jër mu ne amee sama kër dafa la neexul ma ne ko mukk neexuma mu ne ma lu tax ma ne ko parce que ça pèse sur ma tranquillité c'est un palais les palais c'est comme ça mu mu jaaxle jaaxle jaaxle euh, ma ne ko c'est pour les traitants les traitants mu ne ma un traitant c'est quoi euh, que quelqu'un qui achète des, des cacahuètes pour, pour, aller les revendre en Europe. Comme il ko les grands espaces ça tue ça tue l'intimité ma itam rek sabote ko ba nga xam ba ma demee quartier euh, ci euh, de visite ba quinze jours après ma ñëw fekk mu sakk mu sakk piscine ba ndeysaan sakk ko ba noppi jënd hôtel ba ma ni lii de kenn mësu ko gis seetal loolu moo tax mu kàllaf bu dee bu dee wax loo xam ni du essentiel da ko ciy génne da nga ko ci génne parce que loolu du seen mission affaire lu ñu yette kii ak nangam nangam te fekk loolu xale yu tuuti yi sa am nañ ko xale yi gën a tuuti am nañu ko man bi ma ci am am naa man fukki at Mamour moo ma ko may Mamour Mamour benn xale bu baax la xale bu baax la yàlla xam na ko bu gisee lu baax rek may ma ko pour wax la ni noonu la waaye bo réeree sa bopp foo dem rek ñu dal di lay nax kooku noonu rek la demee moo tax Seydou Nourou loolu mu wax c'est très important sa papa de masul fooye bakkan nit yi moo tax masul nangu nit yi fooye bakkanam farata la de farata la pire maam Muntaga Taaha moo ma wax ni ma wut si wuñ fi àddiya de wut si wuñ fi daraja wéttal leen fii wut si ñëw ñëw rek gis sa maam xam ni mat na wéttal gis sa papa xam ni mat na wéttal loolu moo nu fi indi ne bu dee barke walla leneen yàlla jox na nu ko mu ni ma gis nga sa maam Hajj bi muy wut wéttal mu nga jëm Madina daal di ci ñëpp jël bagage wax na dëgg Maodo dafa xëy rek. dem dëkkaale ak yonent bi dem dëkkaale ak yonent bi dem ba àgg rek ñu wañi ko ni ko doxal fa nga jóge won parce que li xew yi na léegi gor ga ko ko wax xamna kana xamna ko gor ga ni ko hada zamanu sukut hein hada zamanu sukut wa luzumil buyut ni ko qaayilul haqq yudrabu bi nëbboot seetal loolu ni ko jamono bii jamono tëj sa gémmiñ la waaw ak boo amul soxla nga toog sa kër waaw ku ñemee wax dëgg ne yetu alkaati dal la loolu la ko wax de mu ne ko kon nag maa ngay dellu dal di jël bagage jaar yi alexandre pour affaire bibliothèque boobu ñu doon wax ni lislaam a ko lakk muy laaj ba xam dëgg la wala du dëgg te xam na ni du dëgg pour wax la ni loolu la boo amee kilifa yoo xam ni dañ lay dimbale ba nga xam ñooy kan dootoo leen mën a fay kooku lool rek la ba tax yàlla nu yàlla kilifa te yàlla taxawunu te itam rek nu bàyyi suñu xel ci ni bu nu mënee sang suñu réew rek nu sang ko waaw te nu ñu sell rek waaw rek la tabarkalla tabarkalla ah bu dee daayira bi nag daayira bi moom dafa mel ni dañu nekk ci biir di liggéey waaye itam xas nañ ko féetale seen Babacar ba noppi bañ nañ ko ba siège baa nga ca këram kon nag moo ko moom piir nuy bëgg rekk di ci waxtaan ak yéen ci suba rekk ma ah, ma ah, Euh, ci guddi rek maa ngi ci waxtaan ak Pape Malick euh, mat na ñetti fan maa ngi ci waxtaan ak Moustapha ma ni ko rek moom daayira tarbiya la rek waaw daayira tarbiya la nan ci dugg rek def suñu tarbiya moo gën ndax tarbiya ku ko deful léegi da ngay tardé ku deful tarbiya da ngay tardé man maa la ko wax te loo xam ne sëñ Babacar ko moom dafa am ko ñoo naan nangam nangam nangam ma ni ko gis nga daayira bi ki ci gën a tuuti ku ko laal rek sëñ Babacar dal ci sa kaw waaw loolu mooy li ci nekk parce que du ko café maa ko xam xam nga mag mu toll ni man këriñ këriñ këriñ këriñ ñëw nii ah, ci tarbiya laa nekk de yàlla xam na ko ci tarbiya piir laa nekk bés bu ne ah loolu kenn mësu ko gis naa koy wax ba Malick miir bu jékkee bët yi xaw a xonq ak ñëw ma ni ko rekk muñ ko ndax boo rëbbee borom rek mu am ko waaw Moustapha mi bés bu ne bu ñëwee wax wax ma ni ko defal ni Serigne Cheybatu daan def rek moo ko waxee tawata tawat mu ni naanal ndox bu sedd waaw doy na sëkk naanal ndox bu sedd te jàpp ci yàlla loolu mooy li fi ne waaye sëñ kër Pire man xam naa ko ah dangeen defe ni pour ma ñëw fi ni caaxaan caaxaan di caaxaan caaxaan parce que tarbiya la tarbiya la de te tarbiya rek a fi des nag tarbiya rek tarbiya rek moo fi des tarbiya ak tarqiya moo fi des tabarkalla tabarkalla nu di ko def rek tey ñaanalante jàmm rek tey ñaanalaale réew mi jàmm yàlla defal nu jàmm ci réew mi yàlla defal nu jàmm ju bare bari ci réew mi te defal nu yiw te itam raxas xol yi rek man de loolu laa ci xam-xaw ma ci leneen te luñ ciy def rek ñu def ko ci penc bi moo gën de luñ ciy def rek ñu def ko ci penc bi moo gën de moo gën a baax comme ni ko yonent bi waxee rek noonu daal di rek wax yàlla ni ko nag innama najwa mina cheytan innama najwa mina cheytan la xayri bi kakari min najwaahu bu ko defee yi ci des yépp nag yàlla mën nañu ci dimbale mu ngi tolloog nag kenn ku nekk ngi salit waaw sama om bi dafay metti sama gannaaw gi dafay metti sama nandam ji dafay metti waaye yonent bi nee na képp ku yàlla bëggal jàmm boo xëyee suba te yëguloo lu lay metti ne booye boo nga tiit yonent wax de waaw nee ku yàlla yéene jàmm nga xëy suba te yëguloo lu metti nee na bés bu ne nga am lu lay metti moom dara nga ci mënul te li gën a neex boo dee mag yàlla ci boppam moo lay jàngal sa bopp seetal lool ni mu neexee médecin du la ko jàngal sëriñ du la ko jàngal keneen du la ko jàngal yàgg yàlla rek mu naa la fii nangam laa fi defoon gis nga dafa manqué moo tax muy metti nangam nangam nangam mu wóor la ni yàgg yàlla nii ngeen def léegi ay copain ngeen seetal lool yàlla ku ku nekk copain sowe nga wax dëgg yàlla te nag moom il est prêt il est prêt à

baaxul mukk di wattu lu sew di wattu lu sew tabarkalla télévision rajo journal ak yëpp ñu ñànn leen yàlla ndax seen coono metti na la yàlla jàppale leen te yàlla taxawu leen te li ñuy def it am na njëriñ ndax nit ñaa ngi ciy jëlee ay xam-xam xam-xam moom li ñu naan àdduna yàqu na yàquwul dara tey la gën a baax maa la ko nit ñay def bëgg rek yàlla delloo jamono ca troisième siècle te du ko def fii mu ne nañ ko bàyyi rek nii mu doxale àdduna mu doxale ko moo gën de moo gën de bu ko defee nag ah li ma leen waxoon léegi nii euh, euh, divinité yëpp wàcc nañu xaalis rek a des fokk nu wut xaalis nag loolu moom mënul ñàkk waaw xanaa wutin wu baax rek waaye fokk nu wut xaalis nag kooku de moom liggéey rek nak liggéey liggéey liggéey def lu nek liggéey def lu nekk tabarkalla liggéey rek nak liggéey rek mo am solo te développement tubab yéen koy wax waye xamuñu ko tubaab yi ci seen bop dafa am lu ñu moy liñuy tuddé ñuy dégg le sens de la mesure amuñu ko ils sont pratiques ils sont efficaces

ko am sans mesure doo ko def maa la ko wax bes bu ne ma wax len ko man duma len ko neub waaye nag ils sont efficaces ça il faut le dire ah, ils sont très pratiques mais loolu mo len manquer li ñuy dépenser ci développement jaruko jaruko parce que dañuy fekk lu ñu war dépenser ben ñu dépenser ci jouni loolu mo yaq aduna bi ba fi mu nek gis nga les planètes sœurs là ñom Otaari ak ñom Miriix nous sommes ngi yenn loxo di ndax ils l'ont vidé de son sang mais c'est la vérité ils l'ont vidé de son sang parce que pétrole bi deretam gaz bay les métaux mais waaye loolu kenn mësu ko gis mu ngi di taxawaalu sœur yaa joy rek rek Mirreex bes bu ne mu yone ben lettre Utaarit bes bu ne mu yone ben lettre Xamar bes bu ne mu yone ben lettre bëgg ñu bàyyi leen rek ñu ñëw fayul ko ramassé nu nun ñëpp wuti fu mu jëmal waaye yàlla joxe leen ci ndigal mi ngi seetaan na ni ba tey waaye ñoom ñu ngi koy jooyal ni ils l'ont vidé ce sont les humains qui l'ont vidé de tout son sang bilaay dañ ko yërëm suuf si deseetul dara deseetul dara

sëram yaa ngi jooy rek di jooy rek di yóbbante rek ne nañ ko yërëm nit ñi ñoo ko def noonu waaw loolu lu ci nit man parce que pétrole mënoon nañu dund ba àdduna tukki te dunu soxla pétrole mënoon nañu dund ba àdduna tukki te duñu soxla gaz man maa la ko wax xam naa li ma wax lan la parce que borom bi wax na ko ci alxuraan waaye bis bu ne ñu gas ci pétrole bu ñu xamul fu ñu koy jël oto yi tëf tëf yi yu kenn xamul yu bëgg rey nit ñi ñoom itam développement baax na mais am na façon boo xam ni baaxu ci baaxul de parce que bu ñu développé woon adduna bi ci façon bu jaadu kon waxtu wi fekk na gàncax yi am doole ak ngir te ñoom su ñu amee doole rek tabarkale yi ci des kenn du ko soxla yi ci des kenn du ko soxla. waaye jël pétrole bi fii jël gaz bi fii dugg fii génn fii ñu ni dafa civilisé kii civilisé wul euh, li Cheikh Anta Diop daan wax nee na ma fii dépotoir rek lañ ko def Cheikh Anta ko wax li ma dépotoir rek la parce que yi ñu fi indi soxlawuma ko il a parfaitement raison il a parfaitement raison même seen réew sax nañu ko defee baaxul mukk dañu war defee baaxul développement ba dafa ëpp te suuf saa ngi gën a alku mi ngi gën a alku man maa la ko wax mi ngi gën a alku nun taxaw donc yal na nu yàlla taxaw ah yal nu yàlla taxaw yal na nu yàlla taxaw yal na nu taxaw loolu rek mooy li ci nekk man nag démb ba tey maanaam rek ñu ñaanal ma rekk ndax dama sojo soj gis nga sama baat bi ni mu mel ni ngeen di ma ñaanal ci soj mi tabarkalla waaye yàlla dogal rek wallahi alazim ñii sama seede lañu ñaari fan yi passé damay sëqat ba damay tiit ma dugg ci tànt bi rek yàlla dindi ko wallaay ndeysaan seetal loolu ma xam ni lii eh, Babacar si kontaan na ci du dëgg nu toog nii waxtaanante gisante ñaanalante yàlla eh, Eh, ñëlee nga ca jóge ca Nouakchott ñëlee nga jóge ca Italie ñëlee nga jóge fii ci Dakar ñii Tëngéej fu ne tabarkalla tabarkalla gis nga Tëngéej sëñ Babacar si nee na ci dëkk yi yi nga xam ne boo fay ñaan yàlla mu nangu ca la bokk sëñ Babacar see ko wax de nee na ñetti dëkk booy ñaan yàlla dem fa nee na Tëngéej Gorée ak Jiwaalo sëñ Babacar si te boo dee def xalwa piir te bëgg mu nangu nee na nga ko defee tëngeej wala nga defee ko juwaalo walla nga defee ko eh, nagalaat gore waaw moo ko wax bu ko defee mu di ko séddoo ak ñoom Cerno Ibnul Arabi Cerno Ibnul Arabi dem dem juwaalo moom mu dem tëngeej ñu def xalwa ba ba ñu sottee eh, moom mu bind résultat daal di koy jox ku sàggan ni ko demal jox ko ibnul bi te moom mu bind bosam wax ma fu mu toll yàlla ate ko ko dem topp ba kanam rek yóbbuwul kayit ga sëñ Babacar di di ko xaar ba defe ni sax kayit gi dafa réer fekk réerul waaye yàkkamti na ba bind Cerno ibnul arabi ni ko yab na larab kay fa xaalu daal di koy woy ndax gisul tontam te lañu doon liggéey na mu toll kenn mën lu ko nettali من كو يا العرب كيف حاله بعثت ما فيه باله وفيه ما فيه حقا مما يرى ويقال والله نيسان إن داع ذاك فحزن أو ذاك منه محال فافتح براس حبيب لم يدري أين مجاله والله نيسان لك جنو ابن العرب من كتعفر ba ma من ca affaire ba dañu ndar képp woon réew mi wax la ko dañu ndar képp réew mi ñu nga tëngee ñu nga jiwaalo ñu nga gore di ñaanante yàlla rek wallaay ndeysaan yooyu amee réew mi ba léegi maa leen ko wax la tabarkalla tabarkalla